maa ngi siyaar ñëpp di leen bëggee di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu mulit di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko yokk ko te ko ba lépp lum naalal sëriñ bi mu defee ko ni ko bëggee noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Mout Fall Mbène la defi jëriñu Cheikh Ibrahima Fall. kon ba tey ñu ngi nii kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi fii ci jannatul mahwa nga xam ni fii la ñuy e, waajee ngir. liggéey boobu sëriñ bi jox ñu ci kuréelu sàmm warmaay Touba bi lii nag boobu ba tey ñu ngi si liggéey bi biñ tàmbalee liggéey bi boobu ba tey bagage yi lañ fa daje dajaleegul ak ak yuñ jot a taal ndax ku ne xam na ni espace bi demeewut noonu fii noonu tamit lañ koy yaatalee rek ba ba nga xamante ni daal bagage dañuy bañ mu daje fi fi bëri am na yuñ jot taal waaye daal nii nii la demeegum kab yi ngay gis nii ni nga ko nangoo ci ñi nga xamante ni si maanaam jotuñoo dégg ndigal bi wala dégg nañ ndigal bi di tànkamlu ba tax na yaatal nañ gëstu yi am na ay féticheurs yu fi jàpp am na ñi nga xam te ci wàllum ciné ba rek wàllum takkaay ak sëriñ bi doon tere lépp mi ngi fi lépp nag ñoo ngi koy ànd ak sëriñ Matar moom mooy suñu euh, chef mooy suñu jëriñu équipe. kuréel gi nag maanaam niñ ko yaatalee daa am comité d'intervention am comité d'organisation ndax ku xam na ni Baye Fall yi seen lépp ci organisation lañ koy teg. ndax buñ nee Baye ci wàllum doxal moom kenn la ñuy déglu muy seen jëwriñ si biir waar woowu nag ku si nekk am na loo ciy doxal muy sa muy sa wàll ñii ñooy gérer wàllum alamaan bi ñii ñooy gere wàllum colko gi ak ñuy redresser nit ñi ndax nekkul dañuy téye nit ñi jàpp leen rek bàyyi leen ñu dem dañ leen ñaax ci ay kàddu ñaax leen ci ay doxin fàttali fàttali leen digal bi am na si ñu fi jot a jaar sax ba tey dugg nañ ci liggéey bi di ànd ak Baye liggéey bi kon Baye Fall yi ñu ngi liggéey liggéey bu am solo mbir yi teguñu ko ci àll kase luñ organiser la ndax suñu mbokk cadreur bi ñëw fi fàttali nañ ko ko léegi ba ba ba ba wat ko kon moom am na bu demee dina sooñu mbokk caméramanam yëpp ak cadreur yëpp kon noon képp lañ ko sëriñ bi digalee teñ di ñaan sëriñ bi ndigal ñu jox ndigal li oyof tollu si ñun jàpp nañ fi tamit ay wàllum seneebar wàllum toxok sàngaraak yooyu bu dee wàllum yàmbaaji duñ ko téye fii ndax loolu day mel ni déli ndax dëkk bi tamit dëkk yoon la yoon da ci am wàll loolu buñ ko jàppee ak ñiñ koy jàppal leen yóbbu ci police wala gendarmerie ñooñu ñooy ñooy doxalu mbir mbir moomu wàllum pon bi nag ak sinébar ak gens bi surtout gens bi gens moom lu fi lu fi lu fi lu fi lu fi am doole la kon nañ nañ nañ xam ni kat sëriñ bi mi ngi soññiwaat ñëpp ñu koy jëfandikoo nañ ko bàyyi ndax bàyyi faay li kuñ si jàpp loo si bañul bañul ñu ko si barki Siyaara Faal ndigal li lépp lum jaral nit ñi ngir ñu bañ kaa def jaral nañu fukkam ngir ñu def ko barki Siyaara Faal ak ku mënti doon amuñu kenn kuñ ci xàjji mbaa ñu ko siy génne kon ndigal loolu la ñu sëriñ bi la ñu bi digal ñu ngi waxee nag ci kàddu suñu jëwriñ sëriñ Matar mi nga xam te ni moo jiite comité d'intervention bi ak Assane moom nga xam ni mooy suñu chef d'équipe mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jëwriñ bi lépp li nga xam ni am na fi daal ay kuréel la ko jàpp yoo xam ne ci ay gox yu fasandikoo la nekk biir Touba waaw du kenn nit a jàpp équipe lañ te ku ci nekk luñ organiser la carte yi eh, maanaam nañ xam ni képp kuñ fi jàpp carte lañ la woon indi la tuuma yi gars yi def ak fake news yi gars yi def si internet bi dara amu ci dara du ci dëgg kuñ fi jàpp carte lañ la woon kuñ fi wanul carte amut te jàppuñu la kon nag fake news yi gars yi def ci réseaux sociaux yeeg ñun loolu dégluwuñ ko bàyyiwuñ ko sax xel TikTok ak Instagram ak Facebook ñun amuñu ko sax ñun xamul luñ xam mooy lu sëriñ bi wax lu sëriñ bi wax nag ku ko wax moom loolu ñun loolu lañ wax ko waxul xamuñu si yow dara waaye ñoo ngi fii ci liggéey bi maanaam ba tey nag bàyyiwuñ duñ buñ jàppee duñ bàyyi fii ak bi li mu bëgg amut barki sëñ Modou loolu xam nga Baye Fall moom ay takkaay yi daanaka maanaam taxul ñu ne la Baye Fall Baye Fall jëf ju sell ngay jëf ba koo jaxasool sax amaana bu xamutoon Baye Fall war na faa mën a jaare xam Baye Fall kon Baye Fall du ay takkaay du defi njañ du yooyu Baye jëf dëgg la ak wax dëgg ñun si loolu la sëriñ bu tënk ñun ñi nga xamante ni nag ñooy Baye Fall yi nag problème bi mooy lan Sénégal dañoo mënta distinguer Baye Fall ak leneen kuréel yi fi nekk di tuddoo ki Baye di soli palaak di defi yooyu noonu ñooñ lañ doon ñoo ko xam waaye ñun liñ doon te sëriñ bi tënk ñu si loolu mooy sell jaamu yàlla liggéey ñaqu jariñu tudd yàlla naan ci kafe Touba bi toog di déglu ndigal joxe suñu addee sëriñ bi ñiy def loolu ñoom seen yëfi bopp lañ nekk ñooñu xamuñu si ñoom dara kon koo fi gis muy def loolu mën a la waat door sa loxo si taabal ne du Baye Fall moom yëfi boppam la yor Baye Fall daal ñi ngi kër suñu Amdi Fall Moodu Mbend bi di di di di nekk aussi tamit ci buntu kër Cheikh Rahima Fall yëpp kon noonu képp la demee waaw waaw lii mooy carte comité d'intervention bi lii nii ku ko gis xamal ni kii kuñ intervenir xamal ni lii ci lu wér a ñuy li kuñ ñu yor carte bi ñu lu wér a wér a moo leen di moo leen di yëkkati waaw am na yeneen carte yoo xam te ni ñooñu ay sensibiliser dañuy sensibiliser ñooñu moom am nañ droit wax ak ñëpp am nañ droit tamit def intervention mais intervention avec force ñu yore carte bii rek ñoo ko war ñoo ko ñoo ko ñoo ko war a def kon ndigal loolu ba tey rek ñu ñëwaat ci organisation bi xam ni lu Baay Faal toog def ci ay étude defuñu ko ci ay aali kase de étude lañ def xam lii kat maanaam mm, liggéey la boo xamante ni avis la ndax ab Baay Faal lu mu mënta régler keneen mënu kaa régler ndax ñun jiitaluñ suñu intérêt personnel ndigalu sëriñ bi lañ jiital te moom lañ def en faveur kon nañ xam ni kat maanaam ndigal loolu la ñu sëriñ bi jox te it ñu fàttali rek lépp lum jaral nit ñi ngir ñu bañ kaa ngir ñu bañ see tënk jaral nañu. lu ne ngir ndigal loolu am te lu sëriñ bi bëgg par force day am moom daal nañ ko xama nañ ko nañ ko xamandoo lii ay féticheur lañ ko jàppe ku na xam ne léen yi moom waaw ay lu ne ay jalan ak sàngara lañ si doon def ak yooyu noonu waaw moom daal nii la demee waaw waaw waaw moom daal mi ngi mi mi ngi nii ñu xam ne kat Baye Fall yi moom fii rek lañ tënk seen i kàddu te fii rek lañ tënk seen doxin kon képp koo gis doxewul ci li lam doon moom moo ko xam waaye ñun Baye Fall yi tey tënku ci Cheikh Rahma Fall ci lii lañ nekk barki sëñ Modou mbend ñi jaay seen bopp tamit maanaam jàpp nañ fi ñu baree baree baree bare waaye doxalin bi sutura sëriñ bi lañ ko see digal ndax nit ku si nekk am na ak ak yelleef am ñu droit di publier ay nit ci réseaux sociaux yi loolu ña koy def tënk wuñ si ndigal te it gisagoo kenn koo xam te ni si kër gii la ne ci ndigalu sëriñ Amdi Modou Mbenda di def loolu. kon la def ñooñu ci mbenn mi lañ nekk kon ñooñu eh, population bi nga xam te ñoo nekk Touba nañu xam ni képp ku la wanul carte wanu la carte d'intervention bi bu la ñëwee laaj la bul dem bul nangu xam ni sëriñ bi moom ñi am carte ñi kase la la dugal si liggéey bi ndax bëri na ñoo xam ni seen tolluwaay bopp lañ ci lañ ci lañ ci lañ ciy demee du ñuy Baay Faal ñooñ lañ doon ñoo ko xam yaruñu mënuñoo yar kenn soxna yuy wecc seen jëm yi nag maanaam ñooñu maanaam sutura moo tax rek amaana mu demee nii waaye ku si nekk xam nañ fa nga dëkk ñi génn nañ leen Touba féticheurs yi génn leen Touba ñi tëj nañ seen kër kon li sëriñ bi bëgg ñu koy waxaat rek for force day am ku mu neex ak ku mu nakari barki sëñ Modou Mbende What?